النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم المحسنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فآتوا أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراديتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما ومن لم يستطع منكم قولا أن ينكح المحسنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن فبالمعروف محسنات غير مسابحات محسنات غير مسابحات ولا متخذات أحداث فإذا أحسن فإن أتين بفاحشة فعليهن فعليهن نصف يمسكهما على المحصنات من العذاب ذلك لمن خشي العنت منكم وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم والله يريد أن يبلغ ثمري وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلق منه النهار فإذا هم والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار فكلهم في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون فخلقنا لهم من مثله ما يركبون فإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون حسبك صدق الله العظيم الرحمن الرحيم والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه الحديد القوى ذو عروة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى الشبوة ما يغشى ما زاغ البصر وما تغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى إن هي إلا أسماء سميتموها سميتم وأنتم وآباؤكم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى أم للإنسان الإنسان ما تمنى فلله الآخرة والحسنى وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى إن الذين لا يؤمنون بالآخرة لا يسمون الملائكة تسمية الأنثى فاصبر علم القرآن خلق الإنسان والنجم والشجر يسجدان والسماء رماها ووضع الميزان الله تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجن من مارد من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم أي من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة أتتخذ أصناما آلهة إني أراك إني أراك وقومك في ضلال مبين وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي فلما أفل قال لا أحب الآفلين فلما رأى الخمر بازغا قال هذا ربي فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن لأكونن من القوم الضالين فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر فلما أفلت قال يا قوم إني بريء إني بريء ما تشركون إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين صدق الله العظيم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه على نفسه من قبل أن تنزل التوراة قل فأتوا بالتوراة فاتقوا تتلوها إن كنتم صادقين فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون قل صدق الله فاتقوا واتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والزانيات ذروا فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا فالمقسمات أمرا إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع والسماء ذات الحبك إنكم لفي قول مختلف يؤفك عنه من أفك قتل الخراصون الذين هم في غمرة ساهون يسألون أيان يوم الدين يوم هم على النار يفتنون ذوقوا فتنة لتكن هذا الذي كنتم به تستعجلون إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما صدق الله العظيم الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار تدعونني لأكفر بالله وأشرك أشرك به ما ليس لي به علم ما ليس لي به علم وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار لا جرم أن ما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة في الدنيا ولا في الآخرة وأن مردنا إلى الله وأن المسرفين هم أصحاب النار فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب sadaqallaahul aziim bismillaahir rahmaanir rahiim qul uuhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jinni faqaaluu faqaaluu innaa sami'naa qur'aanan 'ajabaa يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا وأنه كان يقول سفيهنا على الله شتتا وأنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا وأنهم ظنوا كما ظننتم كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا وأنا كنا نقول منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا وأنا ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا وأنا لما سمعنا الهدى آمنا به فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا صدق الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون وقالوا لولا نزل عليه آية من ربه قل إن الله قادر على أن ينزل آية على أن ينزل آية ولكن أكثرهم لا يعلمون وما من دار حبة في الأرض ولا طائر في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون والذين كذبوا بآياتنا سم وبكم في الظلمات من يشاء الله يدلله ومن يشاء جعله على صراط مستقيم قل أأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء إن شاء وتنسون ما تشركون sadaqallaahul aziim bismillaahir rahmaanir rahiim qaaf wal qur'aanil majiid bal ajibuu an jaa'ahum munzirun minhum fa qaala al kaafiruuna haazaa shay'un ajiib أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنفذ الأرض منه وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصير والنعل باسقات لها ترع نديد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول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 كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وويل للكافرين من عذاب شديد الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا أولئك في ضلال بعيد وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه إلا بلسان قومه ليبين لهم فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات من الظلمات إلى النور الذكر وذكرهم بأيام الله إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور وإذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم نعمة الله عليكم إذ أنجاكم من آل فرعون يصومونكم يصومونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم صدق الله العظيم إن لك بالنار واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا واصبر وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا إن الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا صدق الله العظيم la la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 وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم صدق الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة وجوه يومئذ نادرة إلى ربها ناظرة صدق الله العظيم الله تعالى وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم yusabbihu lillahi ma fi samawati wa ma fi l ard lahu lmulku wa lahu lhamd wa huwa ala kulli shay'in qadir huwa alladhi khalaqakum faminkum kafirun wa minkum mu'min والله بما تعملون بصير خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير يعلم ما في السماوات والأرض ويعلم ما تسرون وما تعلمون wallaahu aliim bi zaati sudur alam ya'tikum nabawu alladina kafaru min qablu fadaaqu wabaala amrihim wa lahum adaabun aliim zaalika bi annahu kaanat ta'tiihim rusuluhum bil bayyinaat بالبينات فقالوا أبشر يأتوننا فكفروا وتولوا واستغنى الله والله غني حميد صدق الله العزيز تلميذ في مدرسة دار القرآن مدينة فاس أنا هنا لأقرأ لكم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 وأرسلناهم إلى مئة ألف أو يزيدون فآمنوا ومتعناهم إلى حين فاستفتهم ألربك البنات ولهم البنون أم خلقنا الملائكة إناسا وهم شاهدون ألا إنهم من إفكهم ليقولون ولد الله وإنهم لكاذبون أصطفى البنات على البنين ما لكم كيف تحكمون أفلا كتابكم إن كنتم صادقين وجعلوا بينه وبين الجنة نصبا ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون سبحان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 اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون ما يأتيهم من ذكر من ربهم مؤتس إلا استمعوا إلا استمعوه وهم يلعبون لاهية وأسروا النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم أفتحتون الشعر وأنتم تبصرون قال ربي يعلم القول في السماء وهو السميع العليم بل قالوا أضغاث أحلام بل افتراه بل هو شاعر بل هو شاعر فليأتنا بآية كما أرسل الأولون ما فهم يؤمنون وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون صدق الله العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن والنازع فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا فرقا فالملقيات ذكرا عزوا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

فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولت إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله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 سعة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المهوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاق البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى أفرأيتم اللات والعزى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 واتقوا الله إن الله سميع عليم يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تهبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون ولو أنهم سبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا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 الناس حسابهم وهم في غفلة معرضون ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا السمع وهم يلعبون لأهية قلوبهم وأسروا نجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم أفتأتون السحر وأنتم تبصرون قال ربي يعلم القول في السماء والأرض وهو السميع العليم بل قالوا أضغاث أحلام بل افتراه بل هو شاعر بل هو شاعر فليأتنا بآية كما أرسل الأولون ما آمنت قبلهم من قرية أهلكناها أفهم يؤمنون وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون صدق الله العظيم الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقرنا في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله من البيت ويطهركم تطهيرا واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا صدق الله العظيم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 وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين فلا تطع المكذبين ودوا لو تدهن فيدهنون ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد أثيم عطل بعد ذلك زنيم أن كان ذا مال وبنين إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين ما شاء الله ما صدق الله العظيم الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم dëggal na loolu président Macky Sall dëggal na loolu ñoom ñooy njiiti réew yi kon ñun taalibe yi mun judul ñaanal leen yàlla société boobu nga xam ne bim juddoo yàggut waaye lim def ci daara ji ci ay ndimbal lu ci mel ni ceeb ci ak yu passé nii dem na ba ci 66 tonnes loolu mooy xatadu Allah te loolu leen ci jàpp am na luñ ci jàpp te dëgg-dëgg daara alxuraan ñi ci jaar xam ne ne ñetti jàmbar nga bind bu dë mokk gëmmentu ak tiit kon ku jël ceeb saxal ko ci daara yow taxawe nga fa ponk boo xam ne billaay su ñàkkoon mbite yéen yi ak ñeseen yi dinañ xam ne yëkkatu mooy góor gëlee toog mooy jëbel mooy def ndimbalu rëy loolu may toog ba yàgg rek nam nga reyal ko ñaari xar mel ni kuy teeru sëriñ bi bu sëriñ bi ñëwoon xaw ma noo koy tere ñu toog sax ne kañ la dem ci jëbel jëbel naan kañ la dem ci njombe ci moom sëriñ Aliou la moom jëbel mii maamam la sëriñ Tuubaa tuddee woon ñoom Sall mu xam ne mbaax fa la fekk baax te moom jëbel moo Samba Thiané mii maami jëbel doon nga làmbee yàlla daj nga yàlla te jotaay bi nag su borom ñëwee foog ñu présenté ko. a ci la na ñun ñëpp ñu def lu raw luñ leen buñ koy defati duñ ko xaj man sax su ma waree wax su ma dara. ginnaaw bi nga xamee ne yi macha allah di jàng alxem sax moom boobu léegi dañuy ñëw ci ñi nga bi daal seetlu woon fukki weer ah, am na loolu karaama la moom góorgóorloom ci la bokk waaye def am na ku ñuy wax Moustapha Signane Fatoumata Badiane tëri na alxuraan ci daara ji ñi ànd ak jëbel ñu leen di wax ngeen yegg si ngeen dugg si si biir am ngeen fi place kooku bokk na si bokk na ci Abdou Diop Mahi Niass Mouhamed Niass Modou Bitey Cheikh Baye Bitey bi tey ñii den tëri rek dem ci dara ja dem ñibbi seen kër yi ngir eh, raison yoo xam ne yu raisonnable la xam nga nit boo ko yóbboo ci dara mu jàng na meli ndey ak doom bu tëree alxuraan di nga soxla sa doom nekk ak yow boo bëggee it mu def leneen di nga ko yóbbuwaat waaye am na ñu fi des di jàng alxuraan kon fukki nit ak juróom-ñeent yi. juróom benn nit teewuñ lu des ci fukk ak juróom-ñeent yi ñu ngi teew ñooñu lañuy jox ñenn ci ñoom ñu jàngal mbooloo mi njàng mu rafet mi ustaas def ci ñoom bu ñett ci ñoom jàngee comme jotaay bi xaw naa yàgg ñu jox boroom xam-xam bi xam-xam li ci gën a neex mooy xàmmee xàmmee moo raw xam-xam Baye Cissé bi tey yàlla daf ko may xàmmee ci xam-xam mu defal ñu waxtaan bu am solo ci njëriñi alxuraan ah di nga wax de njëriñu alxuraan ku ci war a wax de xam naa ne fii lañuy fanaan moom ci loolu lañu ñu war a waxtaanal kon dañuy jox. jàngal xale yi ñu gën a leeral tur yi leen benn par benn. fukk ak juróom-ñeent. Biteye doomu Moustapha Biteye ak Maymouna من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأن ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون إنما جزاء الذين يحاربون الله يحاربون الله ورسوله ويسعون الأرض فسادا ويسعون في الأرض فسادا أن يصلبوا أو تقطع أيديهم أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليه فاعلموا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة إلى بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد المسجد الحرام من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير وآتينا موسى الكتاب وجعلناه وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا ذرية من حمل وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا فإذا جاء وكان وعدا مفعولا إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا حسبك حسبك رحمة الله ومصطفى اقرأ من قوله تعالى إن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 ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني إني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 فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما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 بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون تأكلون ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلى بلد لم تكونوا بالغيه بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون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 المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء وتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا القبلة التي كنت يطيعوا الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب من ربي وما الله بغافل عما يعملون الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم منير حزب بما لديهم فرحون وإذا مس الناس در دعوا ربهم بربهم يشركون ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون أم صدق الله العظيم بسم الله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 الله بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسر يسرون وما يعلنون ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإن هم إلا يظنون فويل للذين يكتبون يمسكون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخطئ يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون waaw Fatou Ndiaye bu ngeen defee dañuy jàngat beneen barab اقرأي من قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم طاسم تلك آيات الكتاب المبين بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم طاسيم تلك آيات الكتاب المبين لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين وما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث إلا كانوا عنه معرضين فقد كذبوا فسيأتي يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون أولم يروا إلى الأرض كم أنبتنا فيها من كل زوج كريم إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين قوم فرعون ألا يتقون قال رب إني أخاف أن يكذبون ويضيق صدري ولا ينطلق لساني فأرسل إلى هارون ولهم علي ذنب فأخاف أن يقتلون صدق الله العظيم ما شاء الله مرسوم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 كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة مثلا ما بعوضة فما فوقها وأما